am nañu mbégte di leen jaar da koy fedd li ni ñu ko defee woon léegi ci suba bi ñuy ubbi sunuy kaddu waxoon leen ne ñi ngi ci pàkk bu tedd bii di njaareem waxoon leen ni ngi waaj liggéeyub sëñ Touba muy bis bi nga xam ni dana woon nan ko ci sant la yàlla mbokki taalibe yi dogal wala yàlla dogal mbokki taalibe fu bis bi jub see fii ci njaareem kuréel gii nuy wax safinatul amaan di goney njaareem sosu woon ci ndigalal Cheikh Sidi Muxtaar ànd liggéey boobu waxtu wu nekk ak waa njaarim gépp liggéey ci liggéey boo xam ne kenn dootu ko fàtte tey foo nekk ba benn fanu safar jot sa xel mépp dem njaarim loolu nag moo tax egsi nañu ginnaaw bu nu jaaree kër Cheikh Ibrahima Fall def ay ziar ci soxna Jëgg Fall jaar euh, fi nga xamante ne bii mooy kër Baay Laay jaar Texaco jaar kër Serigne Mbaye Sarr ba génn si waat biir kër gu mag ñi ngi nii taxaw ak ki nga xam ne mooy oustaz Mor Thiam mi nga xam ni li yàlla dogal mooy kuréelu Safinatul Amaan moom moo yor communication bi oustaz Mor ñu bëgg a xam tuuti ci liggéey bi lan mooy sabab li ak ndigal li fan la jóge woon lanu ci leeral ak bis bii nga xam ne yéen a ngi koy taxaw nan ngeen koy taxawoo ci wàllu budget nan ngeen koy taxawoo ci wàllu jëflanteeg njabootu Sëñ Tuubaa gi waaye nan ngeen koy taxawoo ci yéen ak dëkk bii nga xam ne mooy njaareem te léegi tey liggéey bi dem ba fenn fu nekk ci dëkk yi wër njaareem ñëw di ko ànd ak yéen. ok jërëjëf sëñ Mourtala jërëjëf ñi ñuy seetaan ci Tawfekh Production ni nga ko waxee di leen siyaare bu baax sa di leen ñaanal yàlla defal leen ndam ci liggéey bi wax nga lu am solo muy benn fanu safar. benn safar na safar sëñ Mourtala ren ji la ci suñu fukki at ba ko tàmbalee ba tey ren ji la suñu fukki at ndax ñu ngi ko tàmbali woon ci nekkub sëriñ Baara Mbàkke moom Cheikh Mouhamadou Fadal mi nga xam ni moo njëkk a doon xalif général di murit ci sëti sëñ Tuubaa ah waaye ñun waa Njaareem amuñu sañ-sañu di taxawal dara te tàmbale wuñ ko ci njabootu sëñ Tuubaa gi nekk jaare booba ñu daal di dem ci sëriñ pal bu Mbakkeem sëñ Basiru waxtaan ceeg moom mu yabal nu ci sëñ Muntaxaa booba sëñ Muntaxaa xalifab sëñ Basiru la mënuñu dem leen ci sëñ Baara wax ko ne ko ñëw ngeen ci man waxe ko ko nii ngeen ma ko waxee moom dana leen jox ndigal ah, bu leen joxee ndigal ba noppi nag bu leen dellu siwaat ci man naa leen booleek ku leen ko yoral loola ñu jaare ko fan ko war a jaare ba tey jii di suñ fukki at ba nii sëriñ Muntaxa doonee xalif général di murit bu nu ni woon bàyyi leen ko ñu bàyyi waaye yàlla dimbali nanu bañ demee ci moom nee nañu am ngeen ci ndigal waaye na ko ab yar lal bi bu ñëwee njaaree mit ci jamono tam xarit it loolu lañu wax na ko ab yar lal beneen bi ci des dégg naa la ngay wax budget Sëñ Tuubaa du doxe ci budget ndax budget mooy lu am tàmbali akub yamukaay te lu am tàmbali day am yemukaay bi sëñ Tuubaa nag moom moo wax ni amuma yemukaay bu amul yemukaay nag ak njabootam duñ am yemukaay waykat bi nee na ah, sama yëf du jeex ndax sa yëf du jeex ku ab sangam du jeexal jaamam du jeex ñun sëñ Tuubaa sunu sang bu dul jeexal ñun duñu jeexal budget bi kat du yaakaar du lenn dul yaakaar sëriñ bi ne ko Mbakke dimbali nu ci ay pexe dimbali nu ci wërsëg ñu def ko ngir santale ko ngir santale ko beneen bi ci des tam mooy laaj nañ addiye naam lu war a toll ci mille cent quarante ak six mille cent quarante ak onze mille cent quarante waaye loo ci dégg rek ñu tudd ci mille cent quarante loolu ku fi nekkal Sëñ Tuubaa ko moom. loo ci dégg nag mu doon onze mille mbaa six mille mille euh, dix mille ba mbaa cinq mille ba mbooloo mi ñoo ko moom ci jënd ci ndax gàtt la ndax ndax soble la ndax ndax ndax lu mën a doon ngir jox ko mbooloo mi fi nekk. am nañ nag ndimbal am nañ nag ndimbal ci ba nu ko dalee def ba tey at mu jot mu gën a kawe mu gën a kawe at ma wees ren jii dañoo dem ba. yóbbee ñu ñu dem wut ay ay wut ay gémé waaye taxut ñu am ca la nu gënal gémé yi ñëw nañ waaye soo seetloo sax feeñ ñi li ko waral nag mooy suñ nit ñi dañoo bëgg Sëñ Tuubaa sëñ Mourtalla nit ñi dañoo bëgg Sëñ Tuubaa te Sëñ Tuubaa mën nga koo wàññal fanweeri at ak ñett yoo xam ni ci dang-dang lañ nekk laata muy dem ak bi mu demee ak bi mu ñëwee waaye yoot la woo xam ni lekku ci naanu ci nelewu ci dang-dangam jëm jëpp nag ñun dong taxoon ñun dong la doon dimbali ñun dong la doon suturaal ñun dong la doon ramm na ko sëñ Moussa ko waxee bu du ko nag dem gi wolof nasaraanu te kon bilaay ñëpp dem niiraan kon loolu rek mooy mbooloo mi benn fanu safar ñu ngi koy dundal ren jii di suñ fukki at bu nu ci jugee nag safari njaareem ci jéeku kenn ku dekk dem ci sa quartier ñii dem ci seen suruq ñu fas yéene koo dundal kon daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum jërëjëf Oustaz Mor Thiam la Oustaz euh, yaakaar naa ne loolu nga wax leer na nañ waaye euh, ñu jàngate ci ne tamit mbooleem taalibe yi nekk njaareem génn si nañu tamit ànd ak liggéey bi noo gisee loolu waaw loolu li ko def mooy ñun ñoo fexe fexe fexe ba médiatiser ko ndax lépp àddina média la ndax télé la ndax rajo la ndax ay ndax internet bi la ndax ay flyers la ndax ay projection la ndax lu mën a doon fexe nañ ba médiatiser ko cellule bi ñu yor bi yor communication jàllale na ko ba macha allah loolu moo tax mbooloo mi ñëw te gis nañ itam at mu jot ñii ñëw day day mujj doy te yàlla danañu aar ba doo ci dégg ku damm doo ci dégg ku dee doo ci dégg ku faxaj doo ci dégg dara te xale yi ci nekk góor ñi jigéen ñi lu nekk nga ciy dégg waaye tërëwut mosoo cee gis benn jafe-jafe waaye mbooloo mi moom ñun la gën a jaaxal xam naa jeunes yi tey buñ delloo dana ni bañ dalee sécuriser mbooloo ba tey mos ñoo gis mbooloo mu mel nii kon mbooloo mi moom ki leen génnee ki leen génnee mooy ki nga xamante ni mooy borom yëf yi. jërëjëf oustaz luy xewaat lii ci kanam tuuti. waaw liy xewaat fi mu ne mooy ñëw nañ ba yegg si ginnaaw egg nañ. li ci des mooy cérémonie bi donte du cérémonie officielle cérémonie religieuse la ngir kilifa yi diine yi nga xamante ne ñoo nekk njaareem ñu toog ñu jébbal leen liggéey bi bu ci amee lu ñu jubbante ñu jubbante bu ci amee lu ñu dolli ñu dolli ñu ki nga xamante ni it moom la sëriñ bi booleel di sëñ Falloum sëñ Basiiru te mooy sëñ Abdul Akim moom moom moom mbooloo mii ku ñëw nag mag ko am na sañ-sañ jox la ko ndax yoonu murit ci kilifteef lay dox dégg naa sëñ sëñ Baara bi mu fi toogee di xalifa bi sëñ Tuubaa te la ko jiitu it ay baayam doon ko wax ne mboolu murit mu mu mën a doon ku fa nekk sant Mbàkke te mag fa yaa fa yor kàddu kon sëñ Abdou Akim naam moom lañu ñu sëñ Fallou booleel mu nekk ci sunu wet di nu wax lu jëlee ci sëñ bi ñun ñu di ko wax mu di waxal sëñ bi waaye jotaayu tey bi tey bu ñëwee gis ci ku ko mag day jël lépp jëbal ren jii nag am na lu ci dolleeku loo xam ni euh, organisation wala bokk ñi nga xamante ne ñooy comité d'organisation Grand Magal di Touba bi nga xamante ne sëñ Bass Abdou Khadir mooy lépp ànd koog ñoom sëñ Abdoul Ahad Mbacké Gaynde ma ñoom sëñ Modou Mbacké nee nañ dañoo ñëw ñoom dañoo ñëw bokk ci marché bi ku ñu wax sëñ Modou Aïssa nga xamante ci ñoom la bokk moom lañ yebal di doom yi Cheikh Seydil ñëw na mi ngi ci biir jotaay bi waaye itam mbooloo mi dañoo lënkaloog waa daayira Sarsara bi nga xamante ni ñoo nekk Ndakaaru nga xamante ni fa Sëñ Tuubaa nekkoon ca Sarsara bi mu ñëwee ci liggéey bi jugee ci liggéey bi xam nga dem na fi gànnaar 1903 ne fa ba 1907 fa la amee wirdul maxuus googee mu doon wax keroog it ci jamono yooyee doon na wax képp ko ko fa fekk si sa lépp dana jag sarsaara googe di benn barab boo xam ni barab la bu nekk ci Mauritanie daayira bi nga xamante ni mooy daayira sarsaara ñoom it dañuy ñëw chaque année te fi ne ñëw nañ beneen bi ci des mooy autorité politique yi ak autorité état état tig yi ñëpp ñëw nañ ñi ngi ci biir kon macha allah ñi ngi sant ñëpp di gërëm wasalaamaaleykum. jërëjëf Oustaz Mor.